Uh, Halifa Saleh, uh, Secretary General of the PDIS party, has challenged lawyer Hussein Udabo utilize political platform for the battle of ideas and policies between political parties on how to address the needs and aspirations of the electorate. In a letter to the leader of the United Democratic Party, Mr. Sala said his intention, uh, attention rather, was drawn to an article published on the Voice newspaper with the caption, "Double attacks PDIS leadership, decries uh, leaders as phony politicians on Monday. He said the content does not fit their, uh, their PDIS brand of politics, which is knowledge-based and cannot be reconciled with any attempt to deceive anyone. The rest of the letter reads, We strongly believe that the, that the political platform should be utilized for the battle of ideas and policies between political parties on how to address the needs and aspirations of the electorate and should not be transformed into a theater of wage and battle of insult, uh, subterfuge and threats amid at negating the integrity of the political leaders in the country. This may be justified only if self-defense against the politically uncouth and indecent. Since we do not classify you among such a category of political actors, we consider it wise, right and proper to address this memorandum to you to inquire whether the journalist and extracted what is alleged in the caption from any remarks you made that are specifically directed at PDIS or any member of its leadership. Whilst anticipating your prompt response, please accept, dear compatriot, the assurances of our highest consideration and fraternal esteem. Yours in the service of the people, Halifa Saleh, Secretary General. So um, that's the um, ähm, letter Halifa Sallah sent to the UDP uh, äh, leader Ousseynou Dabo äh, démb foog naa ne ñu ngi doon waxtaanee fii li nga xamante ne mooy story bi on the uh, voice newspaper you know uh, ci caption bi nga xamante ne génne nañ ko ñu Dabo attacks the uh, PDOIS leadership su ko defee ñoom nag dañ ko bindal letter Euh, euh, wax daal pour mu euh, indi leeral ci li nga xamante ne moom moo nekk ci ci ci ci article boobu noonu moom jàpp nañ li nga xamante ne mooy seen plotis bi niñ ko doxalee dañ ko bees ci xam-xam ak yooyu waaye nekkul li nga xamante ne mooy sànniwante ak kàddu wala naxa sudul noonu comme ni ñu ko waxee fu mu nekk ni nag dañ wax ne bëgg nañoo déggee moom ci Ousseynou daa mu tontu leen indi leeral bu baax bal ci li ñu wax ci loolu ci nu mu gën a gaawee parce jàpp ne sax moom bokk na ci political yi nga xamante ne leaders yi nga xamante ne def de eh, ŋàññe nit ak yooyu waaye dañ jàpp ne daal eh, war nañ ci déggee ci moom pour mu indi leeral ci li nga xamante ne mooy loolu lañ wax démba ci ci ci li nga xamante ne mooy ci protect ba waaw waaw euh, comme ni nga ko waxee gis nañ ne moom tegginewul ci ni nga xam ne noonu la waxee lam wax yëpp teg na ko ci dal teg na ko ci yar ndax dafa bëgg leerlu bu fekkee tuumal nañ la ci lu nga xam ne bëgg nga cee leerlu bu fekkoon sax dafa tontu ci tontu bu nga xam ne ku ko dégg di nga ko lu xej na mënoon nañ ko ŋàññe moom ci boppam mhm. ndax li ñu doon wax rek mooy ñiin dafa am bët buñ la ni xoolee ak askan wi nga xam ne ñoom ñoo topp seen ginnaaw mooy jàpp nañ ne njiit lañ yàlla ci lim teg seen nattu ba ñoom ñu jiite ko am ñu leen ci topp ñooñu dafa bët buñ leen di xoolee mhm. bët buñ leen di xoolee mooy ay royuwaay lañ seen wax nit ñi dañ koy déglu seen jëf nit ñi dañ ciy bàyyi xel bu fekkee ñoom déggee nañ ci ki nga xam ne mooy Loya Ousseynou daabu wax na ci kanam ay malitanam wala ay soppeem ci gis ne doy seen politique mooy naxe mbaay la ndax lu la wax démb. Mhm. seen làmmiñ yi ñoo neex ñiy wax nit ñi lu nga xam ne buñ la ko gëmloo ak ñeneen yi ci am yëpp ci nam ko waxee waaye comme xalifa nee na ok liñ bëgg rek mooy Loya Ousseynou Dabo mu leeral te ba daaxal lañ ko bind. Mhm. comme ni nga xam ne noonu la la yaa waxee te am nañ jortab yaakaar ne démb waxoon nañ ko fi buñ déggee mu wax dañ ne xam nañ ne doy dinañ tontu ndax li tax mooy principe la ñuy doxee. yaakaar nañ démocratie bi ñuy wax tam ci UDP bu nekkee ci ñoom ñoom tam dinañ tontu ci bataaxal bi nga xam ne moom la leen doy bind ndax ñun amuñ leen luñ ci mën a àtte dañuy xaar ñoom seen wax ci lañ mun a sukkandiku ba xam ku nekk la muy wax fan la wéeru ba jàpp ne nawlem lam koy tuumal wala mu koy joxoñe baaraam lu nekk ci moom la wala lu nekkul ci moom. exactly um, am na solo Jules de lan mooy sa uh, sa gis-gis ci ci li nga xamante ne mooy because moom. xam nga moom comme ni mu ko waxee daal dafa bëgg a yëf yi ñu teg ko ci li nga xamante ne mooy ci ay xalaat euh, ci nit ñi niñ ko buggee politique boobu mu nekk politique bi nga xamante ne noonu lañ ko war a doxale waaye nekkut ñoom i neen ñuy sànniwante ay kàddu ci xalifa nu mu ko waxee euh, ci loolu nag ndax jàpp nga ne euh, Ousseynou Dabo lawyer dina dina respond as quickly as pour moom tamit mu leeral li nga xamante ne mooy loolu la wax ak ñoom tamit seen taxawaay ndax jàpp nga ne loolu because ñoom ñu ngi wax ne dañ bëgg an Eh, suite li nga xamante mooy an immediate response ci ki nga xamante ne mooy ci ci Ousseynou Dabo ndax gis nga loolu tamit moom dina jar pour mu leeral loolu because ñoom Halifa eh, demand nañ loolu first of all I just want to um, say that this is a smart move by the uh, Doi leadership Halifa Sala, because um, PDO UDP uh, gisana like suñ defee dara like Momuge challenge guy to come on board and then you know battle of ideas and policies rather than you know throwing words you know on one another and so say, xoolee these two political leaders they have been in the political um, landscape for for decades so, so they are veteran politicians so so you say, like uh, ñoom nyom nyungi toog ñu sànniwante kàddu nekk loo xam ne dafa dafa rafet waaye gis ne like the move in which the response in which Halifa Sallah lu mu joxe it is a welcome one te recently sax tey gis nañ ne si voice gaay seen um, edition bi gaay ñu ngi apologize to both the UDP and the Doi party because ñoom dañ wax ne like ñoom ñoom make an error because uh, Ousseynou Dabo yeah Ousseynou Dabo lu mu wax specifically lii la wax waxut uh, mentioned though specifically the foreign PDI as like the foreign political parties. Though, so that is very important to note. The error was actually from the Voice newspaper and it's not necessarily by the UDP leadership because the guy then write a rejoinder on their today's edition to say that uh, Nyom, they did not mention specifically um, DOI but you know all political parties so the error is from their newspaper. So Lulu it's very important to okay, note. So my response Buhalifa Johene mm -hmm. is a very mature one because Munon Talk. rek moom tamit mu jëm considering all that is said in the publication but Mom, deful lu noonu dafa conclude ne ok instead of guy you ngiro ngaro si you know sani wante kadu it's important that guy talk you know debate on ideas and ideologies which yeah, i think exactly